Pape li nga liggéey ci animation. Mhm. li nga def euh, naka nga créer sa identité. Mhm. ba nga am ben identité bu particulier bo xamanteni boo déggee baatu Pape Cheikh mm-hmm. automatiquement da nga naan c'est papier. Cheikh boo papier à la télé da nga naan c'est Pape Cheikh naka mm-hmm. nga travailler sa identité non mais j'ai appris dans un premier temps man dama def dama jàng dans le tas autodidacte comme tout le monde ah am chance teel a intégré RTS ça aussi c'est une chance ah parce que am na ñu bëri ñoo xamante ne amuñu ko am chance à l'âge de 12 ans moo commencé nekk ci métier bi mais am chance am papa joo xamante ni ci lu doomam nekk rek au delà de jàng daf la ciy jàppale sama papa man dès le départ bi may nekk tout que commencé jàpp temps boobu ay antenne TV5 moo amoon ay et puis on regardait euh, les émissions enfantines à la télé sans papa beaucoup beaucoup kuy français Ça papa beaucoup beaucoup respecté respecter conjugaison Ça papa beaucoup beaucoup prononcé. prononcer sama papa beaucoup beaucoup naan ze daa bëgg ku naan ma et puis en passion média et très tôt chance boobu non yëpp ma am peut-être mon dimbali ba ma intégré RTS j'ai été bien formé j'ai été formé par des gens comme Michael Souma j'ai été formé par des gens comme Mamadou Bal j'ai été formé par des gens comme Yaham Cham j'ai été formé par des gens comme Lamine Touré ça c'est les grandes voix radio d'époque Comme elle n'est Francis Chernaba, Ba Claude Gué à l'époque DJ Boub su ñëwé il a fait du Claude Gay man itam bi nga xamé ni tambali na sama carrière aw ma woon identité. amna ay jamono yo xamanteni ni soo ma déggee da ngay foog ni Michael Souma moy wax. amna ñu jamono yo xamanteni ni boo ma déggee da ngay foog ni DJ Boub su moy wax. avant may am identité. topono na ay nit yo xamanteni référence la leen defone mais bi jamono doxé ma jang dans le temps def sama formation je me suis rendu compte que un bon animateur un bon artiste day am identité si identité bobu nak may chercher 17 17 17 17 pour trouver ben identité bo au départ euh euh dafa dan choquer nit ñi ndax imaginer ab xalé bu goor am 20 quelques ans toog ci rajo bi di ngéwéle wala di tek ay kinelam wala di tek ay ça choqué et mais mais fan la démarrer d'abord fan la démarrer ci ban style animation ci ban musique ah ci ban style oui je commençais par faire de de la variété hein, man def émission jazz def na émission musique française par exemple ci sama carrière émission yi ma ci l'émission neex moy émission bi ma daan def bu euh, tendresse ça passait sur Dakar FM 22h30 ba 1h du matin où je ne parlais que français Madame ah basic FM bi bi bi ñuy bi mm-hmm. muy ibbi. Mm-hmm. Euh, c'était du nostalgie bis manam on ne parlait que français Bougan, bi koy ibi dañ ko def comme genre nostalgie Zik Feeling bi ngay dégg mm. euh, variété que laa daan def mbalax bi dama ko doon teg vers les coups de 13 heures mm. mais au fur et à mesure ñuy dem Ça ñu ñëwé ci partie mbalax bi bu ñu téggé ay Michael Jackson et tout ce qui s'ensuit mm. mais bu 13 heures jotté suma téggé mbalax bi da nga gis ni audience bi ci heure boobu lay gëna yok ah d'accord légui nak man en tant que souci artiste mm-hmm. toujours da ngay xol li gëna dox en termes d'audience mhm. mais comme lii moo gën a dox dinaa jéem a xool. mais ñëw à la Zik FM da nga ñëw euh, ci pour. variété tubaab ok làkk tubaab bonjour bienvenue euh, euh, on va écouter une belle chanson ñaa ñi ñaa ñi làkk tubaab ndekete loolu amul benn njëriñ. ok ci jamono boobu ñu tolloon quoi xam nga il fut des temps fii Sénégal. kenn daawul làkk France kenn daawul làkk wolof. ci télé ak ci rajo. Mm. Fatou Francesca Diafoune mii moo fi njëkk a làkk wolof di animé di teg mbalax di ci wax ay wax yu rëy. après du di di buub su ñëw euh, chamboulé ko man nag ma ñëw gën koo kawawee. indi style Baye Cheikh bi xam nga tekki ne la am ngéwéle euh, wax samay wax et tout ça mais c'est comme ça que euh, c'est comme ça que ça s'est fait quoi. c'était pas évident au départ parce que nit ñi xaaruñu woon loolu. au départ ngay dégg man daaw ma déglu ki la am par exemple j'ai des amis qui ont été mais déglu Kiné comme tout sénégalais dañuy am ay clichés mm. mais bima ma ni Kiné Lam je dox mhm. dama ci dugg ñu naan ana ak ma ci ba jur mu jur xamuñu xamuñu alors euh, euh, est-ce que pour nga créer une identité ci radio euh, leadership Bob nga engagé. nga mhm. engagé pour créer une affaire. yombul mais lu ci man persévérance man bul def lay bañ. Mhm. dafa am ben jour mhm. euh, temps FM. Euh, dama plus de mbalax que lu ñu ma demandé il paraît que le responsable programme est venu waaw pourquoi muy tek mbalax man bul def gis nga bi ñu ma parce que entreprise bo dem nak amna jëw kat hmm. lu ñu waxtaane ca réunion ba c'est vrai agent buñ ci jëw rek dina yot ni jëw jottali lako ko <laughs> yegg ko amna fi de defena wala amu fi amna bëpp amna am na en tout cas <laughs> amna na TFM d'accord luñ la lu luñ la mën ci waxal ci réunion ah. dina fa jaaru dina jaaru suuf <laughs> donc du coup ma ñëw lundi sama benn collègue néma waaw kéro réunion bi yow lañ doon amé di paré que li nga tek ci mbalax dafa bëri xam nga luma ma def ab kat la wo ne ko bëgguñu may tek mbalax légui sax damay taasu émission

ok man ànd naag dëmm yi ànd naag noo xóor yi damay tooñ maanaam amoon naa xaritu géwél am naa xaritu lawbe am naa xaritu tubaab man horizon yëpp dama ci am xarit gis nga sama fekk ak sama xarit su ñàkkee da ngay foog ni ñàkk la ah oui mu ne leen bonjour ba toog ak ñoom da ngay foog ni maa ak ñoom a bokk da ngay foog ni sax limite gabone la da ngay wax comme seen soo ma fekkee géwél yi sama xaritu géwél yi ñoom Alsaan Mbaye ak ñoom seen da ngay foog ni ab géwél pire la

j'ai toujours été comme ça only mais néanmoins ñi doon nek ci biti joggé ci seeni koñ ak lañu jëlé bu sama dañuy ambiance dima yi ñi may man d'accord damaa mën temps jàpp

donc du coup. ma gis ni am naa au mm-hmm. départ gars yaa ngi polémique. Mm-hmm. te Sénégal fii loo fi def mu am polémique rek jàppal ni lu ñuy waxtaanee ëllëg la. Mm-hmm. donc bu sama gars yi ñëwee ne sama rakk bu jigéen bi de tey da doon jooy lii ni ñu ma koy nettalee tellement daf may dajji. ba loolu dama koy jàpp. su ma yeewoo le lendemain c' est des c'est des personnages que je crée à la radio. jusqu' à ce que style boobu euh, nekk euh, un style euh, wala écriture radiophonique boo xam ne ñëpp a koy utiliser actuellement. écriture radiophonique boo xam ne ñëpp a koy waxtaanee ba fii ak vingt fii ak cent ans ci kanam. naka la la nar a def ñu ni Pape Cheikh Diallo moom moo créer nangam ci Sénégal. ci animation mais mais dama ciy kontaan. Euh, tey par exemple. su ma par exemple nit nan ma waaw diw mu ngi animer comme yow. Ah. diw mu ngi def comme yow. c'est une fierté. Mm-hmm. ku sañoon nak am loolu. Mm. ku sañoon ci domaine bi nga nekk. Mm-hmm. nga dem ba mu euh xalé yi di la ci topando pour ñu doon wax du baax mm-hmm. pour ñu doon wax li yëfi jigen la pour ñu doon wax ki day font pour ñu doon wax ki inus fatigue parce que am na ay jamono yoo xamante comme télé kenn du wax par exemple ci biir morceau yi mais xam nga jamono bu ne ak la cay dox ak la cay xew plutôt bu dara xewee ca jamono boo àndul ak loolee da ngay sonn mais boobu bi nga ko doon def doo doon jot ay critiques yu jógee ci grand yi oui oui oui euh, euh, euh, Serigne Mbacke ñoom dañoo bëggoon lu strict ministre ministre Serigne Mbacke Ndiaye toujours daf koy fàttali dafa naan waa mais man au départ woo naa la pour ne la style bii nga indi bu ko defatee ci rajo bi mais bi mu demee ba xam ni loolu moo neex nit ñi moom moo ci njëkk ànd ak man Euh, nu de tudd contraste comme ma euh, règle qui ko njëkk a chamboulé dafay nous mais jamono bu a ak la de xew xam par exemple lii xew li lii xew nii xewul woon euh, par exemple TikTok amul woon nekk di fecc tey par exemple avec un téléphone portable tu peux faire de la télé bu njëkkoon émission booy def c'est c'est c'est quatre caméramans plusieurs personnes qui sont à la régie mais les loolu bu njëkkoon kenn mësu koo xalaat ci télé kenn mësoo xalaat ni télé dina dem ba dotul am sax caméraman ci plateau bi loolu boo ko waxaan caméraman mu ne la non loolu loolu du norme télé boo waxoon ni réalisateur ni mën nga dem ba ben caméra ngay teg benn animateur yow kese mën ngaa switcher mën nga def son bi mën nga def yëpp ku ko waxoon ab réalisateur du ko gëm donc ku waxoon ni dinañu dem ba le style radio bi amoon à l'époque nga xam ni voici c'était le one, annonce des annonces parce qu'on disait souvent animateur radio bi warul agacer auditeur c'est vrai Moi aussi je dama toujours toujours tenir compte mhm. même si je wax morceau bi mhm. auditeur parce que si je suis je très bien j'ai toujours je, je me suis toujours dama toujours mos a bàyyi xel ci loolu. dëgg bàyyi xel ci loolu. man aussi bàyyi naa ko xel ci yow. Mhm. Euh, ñu bari bàyyi ko xel ci yow. Euh, say tonalité euh, timbre sa timbre vocal. Mhm. tonalité yi naka nga koy créer ba Pape Cheikh Marie de Tali animé dëj sax. Mhm. da ngay sentir ni que kii dëj lay animé. buy animé mbalax da ngay sentir ni mbalax animés animé. animé plateau de télévision boo xamante ni diine le wala lu mu mënti doon. da ngay sentir ci tonalité voix qui qui euh, li muy def adopté wu ak loolu maa ngi dégg barki demb euh, bi euh, professeur Massamba Massamba Gueye di ko wax mm-hmm, mm-hmm. di def témoignage bi ci yow à la RTS loy def da ngay adopté wu ak loolu mais ci sa tonalité de voix mm-hmm. timbre vocal bi dafay adopté wu ak loolu aduna ñun dañuy adopté wu ci lepp dañuy adapté wu ci lépp c'est-à-dire euh, euh, man je me suis toujours considéré comme un artiste dama jàpp ni artiste là, parce que métier bi ñuy def métier artiste là, de mon animateur artiste day bëri rap très bien Youssou Ndour loolu daf ko teel a comprendre yenn saa yi j'ai pas envie de travailler bu gars yi day wax nañ ko jox demande d'explication nañ ko lii daf naan leen déet mm-hmm. rek la leen pap artiste la man mi yenn saa yi ma xëy duma am envie dugg studio wala yenn saa yi ma xëy duma am envie c'est-à-dire xam am yoo xam ne yaa koy fokkatil sa bopp yow yaa koy fokkatil sa bopp yaay considéré sa bopp comme artiste bu la waa E-Media comme artiste considère toi comme un artiste un artiste nag il s'adapte da ngay adapté euh, ci concept bi da ngay adapté wu ci te loolu talent moo koy maye. am na yoo xamante ni ñuy jàng école. c'est vrai école bi mën nga fa jàng béyaba bi mën nga xam yenn détails yi. mais dafa am loo xamante ni dafay nekk ci yow. Mm-hmm. donc talent boobu peut-être wax naa la ko sànq ak li ñuy defee su ma xëyee dafay dama ko féké donc capacité d'adaptation bobu noonu je trouve que un bon animateur daf ko wara am ba buñ la joxé un magazine politique nga war ko mëna def buñ la joxé une émission religieuse nga war ko mëna def buñ la waxé ni li kat c'est pour rendre hommage wala pour nit ku la tu t'adaptes xam mënoo tok ci dëj mhm. wala ci émission buñu ñu rendre hommage ku nek fanan fa naan ndaa teel talax et pourtant loolu lañ la xamee peut-être. Mhm. donc au-delà de adapté wu. dafa am yoo xamante ni xel moo koy nangu. du ñëpp ko mën yow mi ko suñu borom jagleel nag. da nga koy sant yàlla mais yow da nga koy def ak professionnalisme. Bah en fait bah oui bah oui c'est peut-être que c'est un talent. Mhm. peut-être que c'est un talent bi voilà talent la quoi loolu lañ ko mën a jàppee du ñu jàpp ni que ben professionnel la rek bu toog pour war a mën exercer li mu def. mais talent bi. mais mais un bon un bon professionnel itam war na bàyyi xel ci loolu. war na war na bàyyi ci war na bàyyi xel ci loolu mhm. émission bu nekk ak li mu ça c'est-à-dire man toujours may jouer ci façon de parler façon de rire li may sol ni may togué yooyu yeb dama ci bàyyi xel c'est-à-dire du du da ngay rek non les gens pensent que guen télé wala def émission radio, wala du yomb la c'est un métier hein. Mm-hmm. métier le comme yeneen donc mm-hmm. euh, même vous faites jànguloo ko école. Mm-hmm. pendant que nga nekk ci euh, exercice métier vous war nga mën dans le tas dans le maintenant c'est très facile. on a les téléphones portables tu peux regarder ce qui se passe en Côte d'Ivoire. tu peux regarder ce qui se passe en France. tu peux regarder les autres animateurs ou journalistes. ce qu'ils font de bien et nga jël li am rendre local c'est ce que je dis très souvent la plupart des, émissions que je def mhm. c'est des émissions qui sont été manquées télévision française et puis ma jël ko adapté ko jéem ko rendre local ils ont compris ça il n'y a pas longtemps et ils essaient une émission cartonnée cartonné fort, comme Bachelor comme euh, toute une histoire comme The Voice Nous, mm. ñu expéri lu nous ci seen Nous rek expérimenter Afrique la plupart des émissions qui passaient la télévision française mm. actuellement nous ngi de télévision africaine Nous nous mm. ñu rendre local j'ai toujours pris yi baax fort, mm-hmm. ma rendre local